di ko gërëm te di ko ñaanal di sant itam préfet bi nga xamante ne bi moo tàmbali woon liggéey bi muy préfet Diop moom itam yàlla dogal bi liggéey bi daataka ak suñu borom dogal ñu affecté ko moom itam gis nañ na nga xam ne loolu noonu la tàmbale woon liggéey bi ma ngi ko cay sant waaye di sant itam préfet euh, Anne mi nga xam ne moo ko fi wuutu moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ndax bi mu ñëwee kat yàggut waaye ni mu derulee yëf yi gis nañ ne kii kat ku am yaakaar la kon nag ñu ngi koy sant bu baax a baax te di ko dalal jàmm itam ci dëkk bii nga xam ne ci la ñëw kon moom na rafet njortu bu baax a baax ndax li tax mu war a rafet njortu mooy indi nañ ko ci dëkkub Serigne Touba andi ko ci dëkkub Mamor Diarra yàlla itam defal ko taw féexi bi muy liggéey bi nga xam ne moom la njëkk a sóobu ci liggéey bi mu ñëwee ci dëkk bi mooy màggalug Mamor Diarra borom saam ji kuy ñëw nag di liggéey si Serigne Touba bu sab liggéey tàmbalee ci Mamor Diarra sa xel war naa dal sa njort fi war naa rafet kon le préfet ñu ngi lay sant bu baax baax di la gërëm di sant tam mbooleem CRD bi yëpp di sant mbooleem CDD bi yëpp bàyyiwuñu kenn ndax gis nañ seen taxawaay baax a baax a baax ñu ngi leen ñaan suñu borom taxawu leen seen fii taxawu leen ñu jëm di wax ne tam am na tam ay bokk yoo xamante ne bii bokk euh, ci ci euh, ci autorité yi lañ bokk di yëngutam ci wàllu politique di ay doomi sëriñ bi di ay xaritam di jarbaatam di léppam di ay taalibeem ñooñu tam ñu ngi koy ñu ngi ciy jiital sëriñ Abdul Karim Fall moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci taxawaayam ci jëfam ju rëy joo xamante ne bii mi ngi koy jëf ci kër Mamor Diarra te mosu cee tay mosu cee yokkaat bëri na loo xamante ne bii am na ci kër gi saa yu jotee. moo ciy njëkk moo ciy mujj te saa yu ca pare itam daanaka kenn mën na caa a jëfati kon sëriñ Abdou Karim sëriñ bi nee mi ngi lay sant njaboot gi nee na ngi lay sant bu baax a baax di la ñaanal itam lii sa bëgg-bëgg lii lépp lu ci gën ci yow lu nekk yàlla na ko suñ borom jox ci barki seexul xadim ta bu la ko joxee yàlla na ko muurloo ni ki noonu itam mi ngi sant bu baax a baax jarbaatam di doomam sëriñ Abdou Mbacke Ndaw député à l'Assemblée nationale moom itam gis nañ taxawaayam bu baax a baax ci kër Mamor Diarra gis nañ itam ni mu yittewoo kër gi lépp loo xamante ni bi yittee kër gi la sëriñ Abdou Mbacke Ndaw manga ca kooku tam andi na fi taraanga yu bëree bëree bëri def ko ngir yàlla jënd jëmmi sëriñ Touba ngir jëmmi Mamor Diarra xam na itam Mamor Diarra maamam la moo tax mu def loolu kon moom itam ñi ngi koy sant bu baax a baax ci turu sëriñ bi di ko sant bu baax a baax ci turu njaboot gi di sant itam sëriñ Aramine Mbacke moom itam di doomi sëriñ bi di jarbaatam moom itam am taxawaay bu baax a baax ci comité d'organisation bi ci yu ñuy yoo xam ne moom itam da cey dugal loxoom loolu itam sant bu baax a baax di ko gërëm di sant ku Papis moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax gis nañ taraanga yi soxna Nende Ndiaye madame mbay moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax soxna Marème Sall moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax ak Serigne Bara Gaye ñu ngi leen di sant bu baax a baax di gërëm ci seen taxawaay ndax nit dafa amul lu dul boppam amul lu dul bésam kon ku ñu jàppal bés bi dañu la sant danañ la gërëm ndax Serigne moor jaara lu ñu am ci Serigne Touba moo ñu ko jox nit nag bu fekkee Serigne Touba lay tiitaroo Serigne Touba la yaakaar Serigne Touba la gëm boo ko jàppalee bis ka nga xamante ne bii la mu am ci Serigne Touba moo ko ko jox kooku mënu ñàkk sant mënu laa ñàkk gërëm kon Serigne bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax dellusiwaat di sant galo ba di sant bokki taalibe yëpp di sant ñëpp képp koo xam ne teew nga fi wala képp koo xam ne jëf nga fi wala képp koo xam ne amoon nga yéeney teew fi wala amoon fi yéeney jëf fi mi leen di sant bu baax mboolem opposition bi ci Sénégal bàyyiwul benn parti mi ngi leen di sant bu baax mi ngi leen di gërëm ndax gis kenn ku ci nekk ñëw na fi saafonte na ak moom jëflante na ak moom la la nga xamante ne bii moo war seen diggante te moom itam nday ji seex la rek yaakaar naa lay tëddee ndax njaboot gi senegal yëpp moo leen jaboote kon ñoom itam mi ngi leen di sant bu baax a baax mi ngi leen di gërëm waaye di sant président Macky Sall di sant itam ñi ko fi nekkal Cheikh Abdou Lahad Mbacké Serigne Gallo Ba yéen ñëpp mi ngi leen di sant bu baax baax mi ngi leen di gërëm mi ngi mi ngi sant njaboot gi yëpp bu jógee ci ñooñu itam am na ci eh, ci ci ñi nga xamante ne bi ñoo yoroon liggéey bi Euh, am na ci ñoo xamante ne bi seen liggéey dafa ràññiku ba mënee su leen ñàkk beral ay cant ñooñu nag bokk na ci police seen taxawaay rafet na lool ndax bi ñu tàmbalee liggéey ba léegi mboolem plateau yi ñu fi doon def conférence bi lépp ñoo ko saytu ñoo ko taxaw loolu ba lépp yéwén ñooñu itam ñu ngi leen di sant bu baax baax ñi leen gërëm di sant itam Sonacet moom itam ci wàllu set setal yi ak taxawaay yi nga xam ne am nañ ko fii def nañ fi ñeenti fan ba juróom leen fi lépp def nañ ko def nañ fi ba lenn loo xamante ni bii bëggoon nañ ko te defuñ ko amut ñooñu itam mën nañoo wax ne lañ doon sàkku ñoom am nañ ca 100 pour cent leen sant bu baax baax di leen gërëm di sant Senelec itam seen taxawaay rafet na gis nañ ne lañ leen doon sant tàmbali nañ liggéey bi ñu ngi ñaan bu màggal gi a jàllee ñu ko incha allahu taala ñu ngi leen sant bu baax a baax di sant itam waa santé moom itam ñu ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm seen taxawaay rafet na muy soxna madame Mbacke bi nga xam ne moo jiite district bi ak mboolem personnel de santé bi nga xam ne ñoom la bokkal nekk ci dëkk bi ñu ngi leen di bu baax a baax di ci beralaat ak cant euh, waa croix rouge ñoom itam gis nañ seen taxawaay di sant itam sapeur pompier ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant itam presse bi ñoom itam ba yëf yi tàmbalee ba léegi diiru weeru koor ga ba nëgëni si ñoo ñoom ñoo ànd liggéey bi ba lépp loo xamante ne bii soxla woon nañ ko ci ñoom def nañ ko dañ ko bëggee woon kon ñooñu tamit ñi ngi leen di sant di leen ñaanal seen jumtukaay yi suñ borom gën koo sàmm te gën koo barkeel ba li ngeen yéen ci liggéeyal ko l'islam yéen ko ci liggéeyal Serigne Touba lépp ngeen àggale ko di wax ne daal mbooleem fu waay mën a nekk te jëf ci bis bii wala nga jàpp ci Serigne bi nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi lay bàyyi ak Serigne Mor mu defal la lu kawee sa njortu saahir ak baatin ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Mourtada moom sëriñ Abdul bu Bousso moom sëriñ Mor Roqaya jërëjëf ñu ngi rafetlu teewaayu Baara gay suñu mag di doomi dëkk bi moom itam bokk ci dëkk bi dindi ku baax nekk ci kàngami président de la République sàll Sall Alaaji Mooraan Gaye suñu mag ñun itam ñu ngi rafetlu teewaayam ak Abdou Karim Fall moom itam ñu bokk benn koñ bokk lépp soxna Marème sàll moom Alaaji Abo sàll ak jigéen ñi mu àndal yépp ci ginnaaw monsieur le ministre Gallo Ba monsieur le ministre kenn dootu ko fàtte alaaji Moussa Sakho professeur ñu ngi lay daral bu baax Serigne moodu moom Serigne Moustapha Ndiaté ñu ngi rafetlu sa teewaay alaaji Moustapha Diatara ku ne xam na sëñ Mor Assa Diatara ak borom saam niñ meloon jërëjëf sa teewaay bi mel na ni Diatara gépp mel na ni sëñ aram yi xalifa bi teew na ak mboolem délégation bi yëpp ñëw nañ ñu ngi rafet teewaayu Serigne Boussobé njabootu borom saam gépp ñëw nañ bala ñoo jox monsieur le ministre di leeral nii mboolem bunti kër yi borom saam yépp li ko dalee ci sëriñ Mor Soxna ba ci sëriñ Maxt euh, ba ci sëriñ Abdul Xafoor soxna Faati Kanni ba ci soxna Faati yaay Alaaji Xaadim ñoom ñëpp dikk nañ ak nu ci waay mën a sëtu kon ñu jox monsieur le ministre euh, galo Ba du waxee ba noppi nag ñu déglu sëriñ Jiili ngir njëkkante ak waxtu wi sëriñ Mamor saam borom saam mën a ñaan bismillah ñu ngi rafet lu teewaayu sëriñ moo fi teewal maître Madické Niang ñu ngi lay ziare bu baax moom sëriñ moom sëriñ Ibrahima Njurul ñu ngi koy ziare bu baax auzu billaahi mina sheytaani rajiim ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent yàlla muhammad salallaahu alayhi wa sant sëñ Tuuba ñu ngi nuyu di ziyaar mbokk julli di ak mbokk taalibe fi teew yépp di jëtati nuyoo bi ak ziyaar bi sëñ Muntaxa Bachiru Mbàkke yàlla fi yàgg te di nuyu di ziyaar sëñ Cheikh Ahmadou Mbàkke ak njabootu xaadim rasul gi fi teew teew teew yëpp ak lu mbàkke ba njataan ak yëpp ñu leen di nuyu di leen ziar di yëkkati kàddu suñu turu bopp